wax wahab lana surriyatan tuddiimu al amal saaliha yaa qadim fa feneen ni ko durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu seen jëmm yi rek moom la borom Tuubaa doon ñaan yàlla ndax ngir ma nga xam ni mooy ngirum njool màkkam té ko doon ñaan ay sët yu ko dog té koy yeesal yàlla may na ko ko ndax moom sama borom tuba dafa wax ni lépp lu ma laaj yàlla ci àdduna ak alaxira yàlla moomale na ma ba noppi dunia wa uxra suli wa la ilaha illa allah am feneen fu mu wax ni lu ngeen gis ma bind ko ñaan ko yàlla ci daraje rasulullahi yàlla may na ma ko li ngeen xamul te ma ñaanoon ko yàlla ci sama xolit yàlla may na ma مد لي الباقي بجاه الراقي ما رمت بالقلب وبالأوراح lu ngeen gis ma ñaan ko muy mbind yàlla may na ma ko ba noppi li ma ko ñaan ci xol te waxuma ko yàlla may na ma ko maa rumtu bil xal bi kon lu ngeen gis ci mbind ñu ne borom tubaa ko ñaan yàlla bu mu rëccal dënnu kenn bu mu tiitloo kenn yàlla may na ko boroom Tuubaa ba noppi lu ma ko laaj ci àdduna ak alaaxira jox na ma ko la wax koo xam ne li nga laaj yàlla àdduna ak alaaxira yàlla jox na la ko nag amul lenn lu nuy gis loo laaj sa boroom mu war a rëcc ci dëndu benn doomu aadama ndax yàlla nag nit ñi dafa mel ni danoo fàtte ni walla seen xam-xam eggul ci ni Ludul dem tok ci aras di yalla man nako maye yalla solo wul dara legui nak nako borom tubaa ñane question bi mom moy xana ñiko ko won seen xel yi ño dajul le xelum borom tubaa daj pour mu ñaan ñu ñaan ko yalla wala seen fit yi ño ko ñaanuloon yalla xam nga tiim yaari fekku di bind bam yag nga ko al kitabati ka kulli mursalin sama mbind mi na ko yabalé képp ko xamni won ko ko di bind ba mu yàgg nga ne ko lii à partir di maa ngi ñaan mu kawe julli yuñ nangu yeeg koor yuñ nangu yi jaal kitaabati min dal yawmi fawqa salaatin qubilat wa mi di bind ba mu yàgg nga ne yàlla ku jàng ci suuf mbaa ku jàng ci kaw njàng mi mu jàng sama mbind mi na nga ko def pakkam ci sawara bu mu dem sawara na jàng mi di pakkam bu mu mën a dem sawara wajaal tawalifiya bil muxtaari junnata kulli xaarin an naari kiko wax bala mu ko wax yalla d'accord na ci may ko lepp lu mu ko ñaan dinaay faral di wax ci sumay waxtaan yu bari dinaay wax yu bu nga bëggee gis kuy dem aljana xolal ku jang doy na borom ko wax borom ko ñaan yalla yalla may na ko ko bu bëggee gis kuy dem aljana rek xolal ku jang xasaayit borom wax yalla wajaal tawalifiya bil mukhtari junnata kulli khari'an an na doon pakk ci sawara ci képp ku jàng képp ku jàng nag la wax ak noo jàngee ma xasaayit dafa woom xasaayit lu woom la woom gi mooy ku koy wax ci suuf borom di la fekk fa nga nekk di la defal lu kenn yëgul ku koy wax ci kaw mu lay defal lu àdduna sépp yëg borom loxom bi jot na fépp sëñ tubaab bu ñuy wax universel Cheikh Ahmadou Bamba mooy l'universel moom kese mooy l'universel keneen loxoom jotewut ni loxoom borom Tuubaa bi jote amul l'universel mooy Cheikh Ahmadou Bamba waaw mooy koo xam ni képp ku jëflanteeg moom ba mu jox la lim la jox boo delloo fa nga bawoo bu ñu ko waxtaanee ñu yaakaar ni lim mu yowoon yépp yow la ko jox da jox na sa morom ci wet gi lu noonu waaw léeg-léeg sax damay faral di wax ni bu ñu bëggee wax amul moroom dootu jar ñu wax ko ci làmmiñ nañ tànn kenn ci gaa ñi nettali ko kese nañ tànn kenn ci gaa ñi nettali ko bu ñu nettilee kenn ci ci ñu nangoo dooni goneem rek ñu xam ne amul morom kenn ci ñu nangoo doon gone borom Tuubaa suñ ko nettalee rek ñu xam ne amul morom sëñ Mouhamadou Lamine mi maamam ji muy màggal ak maamam jamu yaroo ndool kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñooñu amul goor gu la tax bu borom Touba jalle muy Cheikh mamour mustapha El Hadj Fall te ñom bëgguñ woon luddul di talibé borom Touba bëgguñ woon luddul di talibé borom Touba yalla da leena boole nak ñuy ñaar ñu yalla boole seigne mamour mustapha ak seigne Fallu yalla da leena boole ño bokk am hat Cheikh mustapha ak njëkk gane jamono nak Cheikh mustapha ak gane am ak bis bi rek amna lu mu wax avant lolu soxna te Lo job ku ne xamna na demé won ci keur seigne kër Fallo ba seigne touba dem fa nganam goga mu fa demone té mu natalon ci ndigalu seigne Madieng Fallo pep seigne Madieng Fallo digalon ko mu natal borom Touba dongo bi mu andal muy mam Cheikh ibrahim Fall pep mo xamni fas wi dana ko meuna dundé dunde yegg mu dem nat yaari handar Cheikh Moustapha la fa am ak Serigne Bara Mbacké mën nañu tëddoo sëñ bi bàyyi koo fa yàggul dara sëñ ma jëng faaloo dajale woon na waa kër ga wax borom Touba ni ko dénk naa la kër gi ak njaboot gi dëkk bi waaye yàggul dara mu wàcc liggéey yàlla dogal na ña fa nekkoon di liggéey Soxna Aminta Lo moo ci gënoon féete ndaw waaye kenn ku ne ci ñoom bi ñu wàccee am na kun la jox ba mu des fa mom boy jur Cheikh Mamadou Moustapha Serigne Touba ñewat ci dëkk bi ginnaw buñu ñu ñu dalal ko waye bokk yi waxtaan xalaata jox xalaat ko jox soxna Aminata Lo Diop soxna Aminata Lo yek lola wax nañ ni lamu mu ci sumun ba lamu momon mu wër depp ba fex Cheikh Ahmadou Bamba fi mu dal jox ko ko niko degg na ñu wax ni dinañ mala yonal waye na nga leen jox li muy fofu la tambalé liggéeyal borom Touba and ak borom Touba andin wow rafetay bi app bi ëpp na dinay faral di wax ni jigéenu Sénégal suñu bëggee wut référence boo xamante si nii buñ ko royee am lu baax àdduna am ko alaxira jarul ñuy ubbi téereb alquran am nañ ko fii ñoo xamante si nii balaa ñoo fay ñaari junni dañ dem ci seen xabru yi soxna Aminta loolu kenn la ci ñoom. ci diine ci ngor ci jom ci ngarmi ci topp boroom Tuubaa toppin wu ko kenn toppul Cheikh Amadou Bamba moo ko wax ni bu nu demee yowmal xiyaam lu géwal di wax géram dinaa la ko wax kon kooka fa mu taxawoon ci borom Tuubaa kon du neex a yegg mbaa du neex a xam bi ci des mooy la bàyyi Moussa Ka nett li ca mars yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha Ba moo jëkk fab ruuxam nga wax ni moo njëkk a moom soxna Aminta Lo moo njëkk a mooñ cere lay ak taalaale fa néegi tuubaa mës la sol gaalaal yi mës la sol lu ñu naan lii lu mu doon moo jëkk fab ruuxam nga moom soxna Aminta Lo Diop def ko haddiya jébbal ko Bamba nday Cheikh Moustapha mooy waliya nga ca marché yëpp Cheikh Mamadou Moustapha ba tudd sëriñ fi waa Makka ak waa Madina moom la tàmbalee way am suñ tubaab woo ko waa soxna Awa Bousso way jur sëñ Fallu Mbàkke xamal leen suñ borom dafa wax ni suñ yetti ruyu daa am gum ci soxla Sona bu Bousso waja mintelo wax sona min telo fem ko mu nopi muniko man mi ma lay demal da di jox borom tuba ruwam gi man mi ma lay demal sona bu Bousso mii doy na ma ci sama jabor ma demal la borom tuba demal ko way te yow Mbàkke li ngay liggey yëkkagut ci bu njëkk la nak boba ndax at mama suñ bara Mbàkke ci feñ am juróom ñaari weer rek mu tolloog entre 91 92 1891 1892 ca bu njëkk booba Touba kenn rek lañ mësa a suul ci armée yi te dafa romb daanu Soxna minte Lo moo ko ñaareel rek wax nañ ni borom Touba feeñal na kéemaan indil na yaari saakoy pep ñu indi ko mu ni nanu ko jaxase ñu lal malaan jaxase ko mu ni ruuyu toll ni pep yi dina fi fekk amin Lo wéttali ko booba bokk yaa ngi xalaat wéetaay te Cheikh Mouhamadou Moustapha feeñ yow ma asura ak ak feeñam rek moom sëñ Mouhamadou Moustapha mandarga la ci kan la war a doon yow ma asura mooy bis bi nga xam ne ci la adduna bi tàmbali ndax ci la maam aadama gise woon ak maam Hawa bañ leen jëlee àjjana wàcce leen ci kaw suuf adduna mu ngi commencé yow ma asura jamono yonent yàlla noohun adduna bi tukki woon na yow ma asura la reprendre ci la gaal premier départ u àdduna ñu koy ñu koy lancé yow ma asura la bi ñu koy relancé waat mooy bi gaal gi di teer sëñ nee na ci darajey sayyiduna Muhammad la gaal gi teer najaa bihi laahu nuuhan bi safinatihi wax wa jaahu ka fa yanqubal baliyaati fa ca des mu ni wa yanquba amma asbatu kaama yow ma asura ca la yàlla musal noohun ca la yàlla musal maam Ibrahima ca la jën wa génn ba ca tefes ga mu gëq yonent yàlla yunusa ca la Moussa xar géej gi jàll firaw na lab ak ñamu àndaloon ca la ñu jël jëmmi Isaa aj asamaan suñ tubaa nettali nañu yooyu yëpp waaye nee na ci darajey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi safinatihi wa jaahu ka fa yanqubal baliyaati bihi qadat naaru ibrahimu باردة مع السلام فهذا قرق عادات به قد النار إبراهيم باردة مع السلام ومن كيد إعداء السلمة وصاحب النون للمولى تجاف فنجا بالمنتقى فطناها كل قماتي بالمصطفى بهر موسى كان منفلقا كما به روح عيسى لسماء سماء من منتخى أخرج المنان يوسف من جب ومن كيد من أنهى تدا ولما بالمصطفى أخرج المنان يوسف من سجد المتين ومن تلك القيامات ay mandargaal boobu ci yow ma asura bis boobu la Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim gane moo ko xamul yow mi dëkk Sénégal mooy xarit ba ci suba bi boobu la Cheikh Moustapha gane jamono ci ama wasasin 1306 ci gàddaayug Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk na borom Touba gis Touba Mbàkke bàyyi ko Daaru di ko wër ba gis ko sax fa te kenn xamagul fu mu nekk moom borom Touba gannaaw bi mu ñëw Daaru Salaam jox Cheikh Mouhamadou Moustapha turu Mouhamadul Moustapha dellu ba mu saxee ba tàmbali sanc ba ca la Alaaji Fallu Mbàkke feeñ tolloog fukk ak ñaar fukk ak juróom-ñaar guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab tolloog laylatul isra wal mihraj guddi gi Seydina Muhammad rañaane yàlla jox ko juróomi julli guddi googal la Sëñ Fallu Mbàkke feeñ waye ño bokk men at mi sëriñ Touba mo len dalal alquran ci loxol bopam jangal len basim ba yaasin Cheikh mustafa serigne Touba ko jangal basim ba yaasin door ko jox sëriñ Abdourahmane Lo ñu bayiko Touba serigne bi sanc Mbakke bari Jolof Mbakke Baari séjour bi yagul ci serigne Touba parce que dafa jot ndigalu yalla ca bañ waré ca atum bay sa sin ba mu am fukki fan ak ñett dafa jot ndigalu yàlla ci génn Touba ndax lor yi du ko fekk Touba moo waxoon sa borom waj al xarimana xariman amina wa kun bi hifdihi kafilan daamina wajullah al xayra min al assiti asitti jàmm rek nay dugg Touba di jóge ci juróom benn koñ yépp kaw ak suuf ndijoor ak càmmooñ kanam ak ginnaaw asitti siis juróom benn jiha yépp na jamm di di fi di dugg Touba kon kon dor yi duko fa meuna a fekk yàlla ni ko da ngay genn dekk bi ndax ya signé dem bi mu daal sañ Bari Jolof def fa juróomi wer de nga bay Moussa Ka naan ba mu amee fa bari di dugg xalwatu di ñaan li lil bari seytaane dem ko na nasaraan bi ni len jihar lay fexe fii soldaar yi aw koor diggi beski tam xarit diggiw ci fuk ak juroom ñett ya ci la genn gennam bu reuy boba di bisu gaaw cey sasin sas Mouhamed jërëjëf bay Cheikh Mustafa, Moustapha kor yu bay sasin la fa ñew ci diggu gam wo fuk ak juroom ñett di bisu gaaw ci la jot ndigalu boromam ak fajar fekkon mu yoni won mam Thierno Ibrahima muy duggu si tolloog mu jot ndigalu yàlla di bagg Cheikh Ibra Faati yegg si bëgg koo gaaral la mu waxante woon ak nasaraan ba mu ni ko Ceerno dara matumaa wax li ngay wax ak lappatoo bi xorandoom yi dox sa diggante tànk yi maa ngi leen gis ceer Ceerno Ceerno jot naa ndigalu sa borom ci wuy ji maam Ceerno jàpp ni danoo war a ànd tabbi ci biir kër gi mu ni ko Ceerno duggaat ci sama kër gi xaraam na ci sama jëmm ndem jot naa ndigalu yàlla ci dem maam Thierno dugg takk fas wa tudd awnullahi fekk sëriñ bi dog yoon wi mu ñëw ni ko bismillah sëriñ bi dugal tànkam ci diggalu fas wi ñibbi ci kaw fas wi mu dox ñetti jéego mu téye biir noom bi di ko ana Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Fadilou mooy li sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou Mbacke wàccee loxoom yi ba mu jot seen bopp ya mu teg loxoom day joor ci bopp sëñ Modou Moustapha loxoom càmmooñ ci bopp alaaj Fallou Mbacke leen dénk naa leen sëñ borom leen ak seen daj na ko mook Cheikh Mamadou Moustapha ak ak sëñ Bara dem na bay ñaan yàlla naan ko su ma naree laaxaan borom Tuubaa kenn ci doomam yii na mu raw balla muy dem mook Cheikh Moustapha mook ba kaamilub Cheikh Mouhamadou bu mu bindal boppam te xoolu ko noppi ñu yóbbul ko borom Tuubaa ci géej gi seex Moustapha ab kaamilub mu bind ci loxoom fekk na Cheikh Ahmadou Bamba ci géej gi ka mu dénkoon manqué dara لازم خسيس اللي في بيتي جرجف الشيخ أحمد بن خادم الرسول Ceerno fexe na Cheikh Ibra Fati fexe na ba kaamilu Cheikh Moustapha bu mu bind ci loxol boppam te xoolu ko fekk borom Touba ci géej bi fekk borom Touba Gabon kaamilu Cheikh Moustapha dem na Gabon sëriñ bi ñu bisee Cheikh Ibra Faate ko andi moom Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Alaaji Fallu